di féliciter FOSAF bon représenté par par son SGA moo xam mi sama wet monsieur monsieur Ba mais aussi euh, euh remercier madame le maire euh, moo xam ne ne mooy premier adjoint euh, adjoint au maire de la ville de Pikine Nord boo xam ne dëkk boo xam ne ne dirigé par Amadou Diarra monsieur le maire def na ay yu rëy dans le cadre de son programme maa ngi koy féliciter wax naa ko sànq. Euh, dañu xaar si euh, mu invité ñu pour ñu mën a dem Pikine Pikine Nord mm-hmm. mën a jël expérience am vraiment journée de partage waxtaan ak ñoom xool fan lañ jaar bu ñu am li ñu am te présidence bi dina dina indi lu bari parce que ñu ngi élaborer loo xam ne mooy guide moo xam ne téere boo xam ne ne daf lay woon yoon na nga mën a tabaxee budget boo xam ne ne ku ku nekk ku gox gi mën a gis boppam mën a mu mën a jël en compte préoccupation bi mu am kon donc mooy xale yi mooy jeunes yi muy mag yi ku nekk xam ne wala quelque quelque mooy couche population ñoom ñëpp ñu mën a jël en compte seen préoccupation kon téere boobu bu ñu koy tabax dañ koy tabax dans les deux jours bu ñu ko suñ ko paree bu soob yàlla dinañ def en parce que ARD ñu ngi fii dinañ faire en sorte que communes yu communes yu bëree bare bëri mën ci jot pour que ñu nekk seen seen seen guide boo xam ne ne daf leen di orienté pour ñu mën a jël en compte préoccupation wax naa ko sànq ma ne dañu war a valoriser képp koo xam ne ne nekk na ci ci ci gox gi ak ci goxu xal yi da nga war a indi sa xam-xam indi li nga am pour ki ñu nga met ko ci ci ci ci disposition boo xam ne ne mën nañu accompagner collectivité territoriale bi pour ñu mën a euh, développer euh, gox yi parce que loolu mooy suñu mission. sant mairie euh, Pikine Nord ci expérience bi nga xam ne commencé na ñun suñu taxawaay tey ci ñun way laago yi nekkul ni dañoo ñëw taxaw pour ni ñun dañoo nekk jafe-jafe boo xam ne population yi dañ ko war trouver solution mais dañoo ñëw pour wane ni euh, malgré limite bi nga xam ne am nañ ko ngir way laago bi ñu yàlla teg mais am na loo xam ne mën nañ ko ci ci loolu nga xam ne mën nañ ko nañ ñu jàppale ci loolu pour ñu mën a indi suñu wàll ci lii tabax réew mi et je crois que suñ defee loolu yaakaar naa ni kenn dootul xeet kenn ndax ku nekk dina la jàppee ci sa man-man ci sa kàttan ndax nit ku nekk am na wax boo xoolee sa bopp am na loo xam ne mënoo ko alors suñ ko généraliser ci fànn boobu yaatal ko ci way laago yi dinañ xam ne ah way laago yi kat am na lu ñu mën am lu ñu mënul mais kon ci li nga xam ne loolu la ñu mën dañ leen jàppale ci loolu pour ñu indi seen participation ci liy doxal réew. Pikine Nord déjà commune inclusive la par rapport aux handicapés. Euh, ñu nekk euh, au niveau euh, ba Pikine Dagoudane dirigé par le maire Amadou Thiara ñu nekk ak les personnes en situation de handicap avec nos partenaires Saay Sauveur ñu am ci ak ñoom des journées yoo xam ne def nañ ko de partage ak ñoom tax na tey ñun ak ñoom benn lañu au niveau de la commune commune bi di participer ci li nga xam ne ñoom la ñu soxla ñoom par rapport ak seeni besoins ñun ak ñoom def nañu ba nga xam ne am na nañu comptable boo xam ne moo ngi nekk au niveau de la commune euh, c'est un handicapé am nañ ci ay agents am nañ ci des élus déjà lépp loo xam ne ñoom soxla nañ ko par rapport ak ñun ñun ñoo ngi ci nekk ak ñoom cette année l'année dernière ci suñu budget defal nañ leen ci 6 millions yoo xam ne pour ñoom la suñu rampe yi partout yoo nga xam ne moom la lañu am accès defal nañ leen des rampes et moo tax loolu tey na nañu lépp loo xam ne commune war na ko am ci ci nga xam ne les personnes vivant en handicap la soxla nañ ko ànd nañ ci ak ñoom ba taxaw ci ak nañ ci war a taxawee.